bu ko fekkee waay jaage ko lu baax waay jaage sa gannaaw la jamono bu ko fekkee waay jaage ko lu baax jamono looy sa gannaaw la jamono bu ko fekkee waay jaage ko lu jaate ko lu baax jamono looy sa gannaaw la asalaamaaleykum asalaamaaleykum ami cher internet bu Dakar Net mbégte la ñuy am saa su ne di jàkkaarloo ak yéen di leen di nuyu fi nga xamante ni tàmm nañ leen fii di leen di nuyu muy ci Dakar Net nee naa lépp lu net rek fii la donte nag xaw ma binet xaw ma odet waaye xam naa samay lunette li ni mel a tax ma nuyu leen fii ci jamono jamono ni ngeen ko xamee seen émission la buy am chaque samedi à partir de 22h. ma ci ànd ak tim bi nga xamante ni saa su nekk duñu di tàyyi eh, di wax eh, lépp loo xamante ne rek moo di fait divers lépp loo xamante ne mooy sujet d'actualité mais lépp loo xamante ni rek daf ñuy jariñ yi ñun mais également jariñ leen ni yéen rawatina yéen ñi nga xamante ni <coughs> taamu ngeen seen émission bi si seen i commentaire ñu ngi koy gis lépp loo xamante ne moo ci xar baax yal nañu ko suñu borom boole lépp loo xamante ni rek ay dëng-dëng la jàpp leen suñu ñii la nañu ko suñu borom boole ñu ñëpp daal ñu koy jubbantil ci kaw loolu laay jubbantee ci moom nuyu ko moom l'intouchable l'incontournable le serviable de son vrai Madiaw Davida maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu Dieng ah di nuyu mbokku internet yi nga xamante ne ñu ngi nii baaxoo saa su ne samedi bu ne ñu ngi topp ci Dakar Net. Mhm. ci seen émission bi nga ko waxee jamono. Mhm. nu fas yéene waxtaanee lépp loo xamante ne xew na ci jamono. Mhm. jamono tamit aussi boo ko fekkee la ca xew ak la cay am. am nga droit wax ci macha allah loolu moo tax saa su ne ñu leen di jox rendez-vous fii ci ci net fa seen ànd ak yéen ñuy am mbégte ak kontaan tey nag nga defaat beneen affaire bu nice defal ni dóor ki yii bi ma koy def man boobu kaay maa ngi woon fële dëkk ba ah <laughs> waaw fi mu toll nii xam nga mhm. xam nga moo tax tey ma nga def ko nii daal kaala gi quoi nga def ko nii a ah, kon ma ngoog ah ma jaw nekk koo xamante ne nee naa ci la ne di def li nekk te doon lu baax ci ñun ñun nit xam nañ ko yëg nañ ko ndaxte nee naa ko yow lépp da koy teg ci professionnalisme ah kon nag bu ñu nee jigéen daal di ne jigéen ndax soxna ak soxla kilifa ak ki fi sës rawatina ki ne faa nga moo tax ma tourné ca moom ah euh, la plus mm. belle la plus charmante la plus mignonne ah de son vrai nom Diz Davida nuyu naa la. ni ko ni koy Ousin di waxee naan gis borom xaalis bi gis tey wane nga ni yow yaay boroom xaalis bi. déggal ah. euh, di la nuyu Davida lu bëree bëri jaw tamit nuyu naa la comme d'habitude di nuyu tamit suñu mbokk internet yi di ñu seetaan waa dakaar net ñu koy defee saa su ne chaque samedi ñu fiy teew pour di leen. Euh, jox ay thèmes important pour ñu debaatu ko. parce que émission jamono noonu lay demee. saa ne. tey damay sàkk ay termes Ouzin Ouzin boo waxee mu ne avec le la beau sourire de <laughs> Diarra le beau sourire de Djiz mais tey nag damay naan le beau sourire de de de Bisou le beau le beau de de de Tuuti mais également Yankoba ba ah, ñoom ñëpp ngi fii ah lépp lu taaru rek ñoom la kon gàcce ngalaama xale yi Dakar net gàcce ngalaama xale yi Sénégal set mais tamit gàcce ngalaama info réew mi ñoom jaar ah, mm-hmm. moom mu ca ñuul ba Kaaba ga tey nag waxtaan bi lenn la muy sujet d'actualité. di phénomène sax laa wax d'actualité ndax kat ku xam Sénégal xam ni dafa am nu mu bindoo ku xam Sénégal xam ni dañoo am ay valeur ku xam Sénégal xam ni que léeg-léeg lu fi xaj xajul buñ ko fi xajal lu fi baaxul it nañ ko fi sempi euh, li ni mel a tax coow bu jubee ñun dañuy ñëw daal ci waxtaan ak yéen li nga xamante ni nag moom lañu war waxtaane tey mu soxal ñu tey ñu toog moom mooy fanweeri vidéo le bi nga xamante ni mu ngi lëmbe réew mi mi ngi lëmbe Sénégal mais mi ngi lëmbe ca askan ba yeewoo foofu ca diwaanu Mbour di ay jigéen yu ko def ak i ay góor mu doon loo xamante ni jëf la mais jëf ju ñaaw jëf ju xeebu jëf joo xamante ni damay rek tourner di koy laaj moom laataa sax wàllum jëf bi lan moo war a doon taxawaayu jigéen ci société bi lan moo war a doon taxawaayu jigéen ci biim réew mi Sénégal atef ma jaw ma ngaw David ah, jërëjëf ci euh, question bi nga xamante ni moom moo laaj mm-hmm. Euh, muy lu jëm ci jigéen mhm. xam nga Davida jigéen xamul boppam jigéen bu xamoon boppam dëgg dëgg dëgg dëgg góor day am problème sax jigéen bu xamul woon bu xamul bu xamoon bokk li yàlla def ci moom <laughs> góor day am problème li tax loolu mooy mhm. bu fekkente ni sans la yàlla dëxan ci moom mhm. moom xamul ci boppam deux bu fekkente ne yàlla dëx na ci moom sang mhm. xamul ci boppam de li mu jàppani mooy moom mhm. ak lay moom wute na d'accord moom jàpp na ci boppam ñaar muy la beauté ak charme mhm. bi nga xamante ni yàlla def na ko ci ñoom nga xamante ni ci charme boobu noonu ci la ñuy ci la ñuy rombee Davida mu daanu ci la ñuy rombee Majaw mu daanu loolu nu jàpp ni mooy mooy jigéen te fekk na du jigéen loolu du jigéen am na lu yàlla def ci ñoom loo xamante ni xam naa nag malheureusement yàlla xamalul leen ko moo tax jigéen li mu war fonke boppam lépp moom xamu ko bu nu fàtte euh, fàttali ko la passé yàlla nu ne terale la leen ko ñoom jigéen ñoom jigéen ñoom nu ne daf leen ko terale leen boo déggee sunu maam Mariama la sainte gis nga ni ko yàlla terale boo ubbi génne saar suuratu Mariama mhm. waxuma la sax loolu waaye ni ko yàlla yàggee fonke ngir amoon lu muy waajal ci moom nee nañu fi mu nekkoon sax musul musul jëfandikoo ñami àdduna sunu maam Mariama laata yàlla di ëffur woom bi ci ci kollam bi moom mës ta jëfandikoo ñamu àdduna saa su ne waa àjjana ñoo ko indi li muy lekk muy ndékki di añ di reer mhm. ba keroog yàlla def li mu def ci moom booba am na lu mu koy waajal mhm. ndax ku sell la da ko sellal moom sunu maam Mariama dégg nga Sëriñ Tuubaa di ko wax ci fusti mhm. yaa uma ruuxil maliki yaa uma jaalil xaaliki yow mi yàlla ëffoon bi ci sa koll bi yaa gën ci jigéen ñëpp moom Mariama gis nga moom moo meññi yonent yàlla Isa sunu même tamit aussi mën naa ñëwaat exemple ci soxna jaara tey nettali nañ la ay yoonu yoonu yoon doxinam ci ni mu def ba ci 30 ci lu matul 30 ndax 30 la làqu waaye laata muy làq 30 yi am na ay jëf yu am solo yu mu fi def keroog nee nañu bi ñu ko nee bi muy dem kër dañ ne ko fii ku fiy jóge dem kër ngay xas yow lan nga war a xasee dégg naa kaamil la laaj bi mu ubbee kaamil bi am na aaye bu mu ci dajal aaye bi di wax ci yàlla ni laata gannaaw yonent bi man yàlla dootuma inditi beneen soo mhm. soxna si daal di jooy biñ ko laajal looy jooy mu ni aaye bii ma dajal daf ma wax ni ma gannaaw yonent bi beneen yonent doo fi am mu buggoon rek fa ma jëm su ma demee ma jëf fa yonent gis nga loolu mhm. ci jigéen bu jël engagement jaayu jaayu mhm. gis nga soxna Anta Ndiaye nee nañu keroog bi muy dem kër moom it day biñ ko nee xasal dafa ni dinaa xas na nanu dem mu toog ci saret bi di dem ba romb benn almeer mu taxaw taxawlu fas wi mu ni ñu mu àndal almeer yii nga xamante ni moom laa dajal ñi fi nekk ndax dinañu jógete dem seen kër yi ñoo ne ko déedéet mu ne fa ma jëm su ma fa naree jógewaat di dem sama kër yaa naa mel ni ñii xam nga loolu xas gënu ko màgg kon jigéen bu xamee valeur mhm. day xam moom mooy kan. donc exemple bu ne mën nga ko ci jël. Mhm. tey jigéen mooy foye boppam. Mhm. mais moom yàlla foyewu ko. d'accord donc li ne ci moom bu fekkente ne garder na ko lu ne parce que tamit aussi jigéen moo jur képp ku baax. koo fi dégg jigéen moo ko jur. kuñ fiy sukkal. képp koo dégg képp koo dégg. kuñ fiy teral. jigéen a ko jur société bi yëpp jigéen ñëpp jigéen a ko jur. te jigéen moom arab dafa wax al ummu madrasatun tekki ko maanaam moom muy lépp mu ëmb lépp moo ëpp moo ëmb lépp macha allah lépp moo ko ëmb moom moo mun defar société tey exemple gis nga euh, le cas de Adji Sarr mhm. bi mu amee problème li wane jigéen dafa am doole mhm. ak Sonko gis nga jamono fi mu fi mu yegg la foo laal mu ngi tàkk mhm. demal jigéen soon Saint-Louis Dakar Kolda Matam foo laal mi ngi takk foo laal parce que jigéen la moom la yàlla dooleel doole boobu. Mhm. moo mën tukkal suba suba jamono. Mhm. moo mën indi guerre guerre mondiale wala civile suba suba jamono. Mhm. doole jooju da ko am moom nag loolu bu ko xamee day garde li nga xamante ni moom la yàlla def ci moom am na loo xamante ni waru ko def. donc kumpa gi nga xamante ne mag ñu njëkk ña moom la ñu nekkee woon ay jamono ci jigéen nga xamante ne nee nañu bala nuy gis moo lay jigéen. wala bu ñu gisee mbooloo jigéen dañuy tiit di daw. Mhm. parce que mbooloo jigéen la ñu gis. donc léegi jamono dem na ba yegg foo xam te ni xale yi jigéen ñi mhm. xaw ma lan mooy seen problème. Mhm. mais léegi teewatuñu seen. seen valeur waaw li ñu war a garder ci ñoom. dañ koy vilipender. li waroon tëj góor ba njëlbeen gi ma wax la ni la boo xamoon boppam góor day problème. li waroon ump góor nga xamante ni moo war moo doon tax góor bu amee quinze ans. day xënti woonu mu jabar parce que day bëgg découvrir lan mooy jigéen macha allah waaw da ngay am 30 ans mën na bañ da xooxu jabar wala 40 ans mhm. parce que ump découvrir na ah, waaw très bien mi ngi <laughs> di kay kàddu yoo xamante ni kaddu yu ama amam solo la ndax dañ koy faral di wax naan euh, philosophe am na philodof ak philosos moom nag sosul daañu rek toftal ci lépp loo xamante ni rek mooy lu nekk mu nekkale ko fii ci Dakar Net ci seen émission bi nga xamante ni moom moo di jamono ma tourné ca moom laaj ko ana jamono ji ni mu ko gisee mooy kàddu gi nga xamante ni moom Madiaw indi na ko ci wàllum référence ci sax ay kilifa yoo xamante ni ñu baax la ñoo xamante ni ay soxna yu lañ soxna yoo xamante ne dañ doon jaayante dañ doon sax di indi ci wàllu woowu maanaam su suñ ko mënee faram fàcce mooy di défier ci ci positivement mm. yow ngay jigéen li xew ay jigéen def ko ana lan nga ciy wax déjà Davida euh, Diaw lu mu wax lu important la parce que ñun jigéen euh, bu ñuy wax jigéen jigéen mooy koo xamante ne mooy jur lu baax mhm. tey fii képp ku ñuy tudd rek euh, mun nañ ne ku baax jigéen moo la jur mhm. donc ñun jigéen tamit ñoo war a xoolaat suñu taxawaay mhm. di jéem a def lu baax parce que mënuñu lu xew rek ñu ne jigéen comme ni ma ko waxee woon bi passé benn émission nee naa ñun jigéen ñi t-shirt bu weex lañ il suffit que benn tâche dem si rek dootul deñ par rapport a góor coow lu muy bëri bëri bëri yëpp ah même bu fekkee góor a jigéen la ku jigéen ko mooy mooy jël empereur bi donc looloo lay woon ne doolee jigéen kon mhm. ñun tamit tey bu ñu demee ba di def ñaawteef yu bon ah te ñun jigéen lu ñu xamal mooy jigéen sax mhm. jigéen amaana bu njëkk ba sax ah pour nga gis fii dënnam sax mhm. problème la loolu lañ xamee woon si jigéen jigéen bu gisee ay góor si àngalu koñ ah, dañuy dañ am kersa mais léegi dem na jamono dox na ba jigéen ñi léegi sax góor ñu ñooy daw. Mhm. léegi jigéen ñi ñoo leen di provoqué loolu mooy wan ne ah jamono dox na dox boo xamante ne changé na mhm. doy na waar. Mhm. mais gis attends foofu tamit dinañ ci tax ñu waxtaan xam nga yaa ngi wax ba naan bu njëkkoon jigéen daawoo dox ba gis yi woom mais tamit bu ñu waxee modd est-ce que du loolu moo leen yóbbee li ni mel ndaxte léegi ku ci amatul euh, poitrine bombe euh, comme ni ñu koy waxee yéen yéen a ngi dem ci yokk kade ñu yokkal leen yéen ba tey fët bi yéen la ba tey. kon est ce que tamit nekkul jamono ji moo laaj wàllu bi ngay wax nii lépp li ngeen di naan da ngeen koy dénoncer est ce que nekkul jamono ba gis nga modd mooy loolu mën nga topp modd terewul tamit ba doo def lu baax mm-hmm. waaw modd ça n'a rien à voir ak jikko yow yi nga xam ne yow en tant que jigéen noonu nga war a doxee mm-hmm. jigéen dañ ko taamu am fulla am fayda lu la sa ngoor may lu la ko leneen may mm-hmm. parce que toll nañu jamono boo xamante ne ah yaay day def lu mën papa def lu mu mën mais boo génnee tamit jamono dalay woon boppam donc foofu ngay amee conscient ah am xel mën a bañ bokk yu bëri nga koy def looloo waral tey ñu bëri di faqasalu kaa yi ngay dégle lan moo ko waral ñàkk xel ah di dem ak seeni bëgg-bëgg ndax jigéen bu njëkk ba auparavant xamee wuñ ko woon nii ah, boo déggee léegi jamono ji loo wax rek ñu ne jigéen loolu donc jigéen war na xoolaat boppam xoolaat taxawaayam parce que lu baax lu ne jigéen moo ko fi jur mais gis euh, euh, ba tey foofu bu ñu fa taxawee. maanaam est-ce que tamit nekkul dimension neex-neex gi moo leen di yóbbee ñuy vilipender ñoom seen bopp au lieu ñoom ñu vilipender leen mais ñoom seen bopp ñooy vilipender seen bopp ndax. garder say vidéo yi nga xamante ne say awra ngay wane filmer ko ba noppi sauvegarder ko tamit jàppal ni neex-neex gi dimension bi est que moo leen ko yóbbee. bii boo ko toppee mën na la sànq. ban lii bakkan bakkan bi. boo ko toppee mën na la sànq. Mhm. loolooy waral tey xale yi jigéen yi bëri man ba ma gisee euh, video yi choqué naa choqué wu ma. Mm. parce que c'est pas la première fois muy am si suñu réew. bu njëkk ba Sénégal bu ñu wax dañ naan ah dëkk dëkk boo xamante ne jigéen yi macha allah. Mm-hmm. ah duñ def naka sudu mais léegi roy moo luñ naan roy dina dàq pire dañ dem ba ñun dañuy ñoo dàq sax ñu ñuy roy. Mm-hmm. ñoo dàq ñu ñuy donc loolooy waral lu motif beeg mm-hmm. yeneen nag yeneen nag yeneen. noo tax jigéen war na xoolaat boppam mhm. jigéen war na xool bu baax li muy def tey mhm. euh, Madiaw li ma lay laaj nag leen la mooy maanaam gis nga jigéen ñi bañ demee tey ba bay mën a di jël seeni vidéo nekk ak seeni copain bay simeekoog di def yooyu vidéo boobu tamit est que nekkul tamit parfois góor a leen koy imposer wala bu leen ko góor imposer wul également est-ce que tamit nekkul ni ñu koy def c'est parce que dañuy ànd ak benn faiblesse bi taxawaayu góor ci anam boobu noo koy jàngate waaw xam nga dama dégg benn wayu kii Adiouza. Mhm. muy wax ci way wi la l'avons voulu mais on l'a imposé. Mhm. donc euh, imposé boobu mu mu tudd. Mhm. loolu la jigéen warul taxawee foofu. d'accord maanaam góor waru ko imposé. même bu fekkente ni euh, bëgg-bëggam la sore na ko góor ki moom jigéen na dawal xelam xam ne moom mooy jigéen. am na ci góor yoo xamante ne ñoom lu nu bëgg rek lu nu bëgg quoi. Mhm. lu nu bëgg lu nu bëgg mais tamit yow xamal ne doo góor. d'accord yow xamal ne yow jigéen la il faut moom mu taxawee foofu quoi. xam ne moom jigéen la dafa am lu ko war mhm. am lu ko warul comme ni ko gis waxee léegi ñoom ni nu nekkee t-shirt bu weex donc lu leen taachal ni mu yombee bokkut ak góor kon góor t-shirt bu ñuul la mhm. waaw xam nga lu ñuul moom lu ñuul la ndax kat par exemple yow bu fekkoon ni wax dëgg yàlla ñu naan Madiaw mi doxaankat la doxaankat la ñuy mën a adressé mais jigéen boo xamante ni chaque jour mi ngi tàppe meg bu nekk kooku amaan na beneen baat bu bokkut ak doxaankat mm. et puis sax kenn dooru ko nawloo et te loolu da koy topp moom na xam ne loolu da koy topp ba ci doomam te mm. et moom mi ngi def loo xamante ni sóoru ci ay doomam mais bu ci sóoroon ni ëllëg day amee ay doom mm. te doom yi bu nu rombee même buñ leen ko waxulee dañu leen koy xoole taway la tey képp ku mu joteel mun na yegg ci ci ci ci loolu mooy li ma la wax trésor la boo xamante ne moom bu xamee boppam dafay war mun garder boppam ci jamono june tey Sénégal toll na foo xamante ni ñoom xale jigéen ñu ci bëri da am nu problème problème bi nu am mooy xalaatunu lii nuy waxtaane tey ba tax na lépp ni nga koy def du du maanaam jël TikTok jiital ko jël seen bakkan jiital ko jël Facebook jiital ko jël Instagram jiital ko jàpp ni ñoom seen lépp dafa war dox ci loolu ba tax na euh, xalaatunu ëllëg xalaatunu ni euh, euh, bu ëllëgee ñoom mën nañu loolu loolu mën na génnaat mhm. te fi muy fi muy génnee du leen neex. du leen neex tey xalaatuñu ñoom seen ëllëg mm. mais ku ci xalaatoon seen ëllëg di nga am conscience bu baax ci li ngay def. mooy mais tamit euh, tamit baax na tamit yow nga wax ak euh, xale yu góor ñi parce que tamit euh, nekk ak jigéen di def ak moom naka su dul noonu li suñu borom tere ba noppi. Mm. bi ngeen koy def mënoon yàlla si boppam mënoon na leen vilipande. Mm. vilipande wu leen. yow góor aussi faafu tamit faaw nga conscientiser tamit góor ñi. nga xamante ne tamit bu ñu di profité. di faiblesse ku jigéen ki bay imposer leur force. Mhm. parce que je pense que ni imposer leur force mooy euh, di leen di seetaan bu doon jàppee nañ ko ni seen siste quel que soit alpha ak relation ba ñu mën a amit am na foo xamante ni dina am ay limites. waaw noonu la demee xam nga tamit aussi euh, yenn saa yi dañ koy dégg sax jigéen ñi di ko wax donc góor jigéen bu bonee góor moo tax mu bon léegi xale jigéen yenn saa yi dañ koy wax. donc te loolu ñu ngi ko teg rek ci yenn saa yi nga gis kuy def lu naka sul noonu wala lu ko neexul loo xamante ni góor mu koy yóbbee mu koy def mhm. donc mais benn instant tamit ku góor ki ku ki moom ci boppam moom mhm. euh, nay bàyyi xel saa su ne ci loo xamante ne ñoom dañu koy faral di wax mooy jigéen moo leen jur d'accord boo nekkee ak moom muy jigéen et puis xoole ko mën nga ko xoole bët bu ne mhm. sama rakk la mën nga ko xoole sama yaay ci moom ci kii ci kii laa jaar donc même ñun ñoom ñun ñu juree ñun tamit noonu la leen juree mais tamit benn instant il faut ku góor ki di ko dawal yërmaane parce que moom yéen ñaar bokku leen leen ni leen bindee mhm. ni leen bindee bokk ngeen forme mais bokku leen ay fond mhm. donc jigéen li nu ci moom ak li góor bokkul da nga koy di wax ñoom seen ween yi dafa ni mu ni mu sëggee la mhm. seen xel di sëggee am sax ñoo xamante ni dañ koy wax rek mais ñoo xel góor macha allah xam mais bon yow ku góor ki dal bàyyi xel lool moom am na fu mu fi fu muy toll moom ku jigéen ki moom dootul àndateeg sagoom surtout bu bëggee. bu bëggee day am loo xamante ne day jóge ci moom. calcul loolu yëpp day day day jóge ci moom. donc yow yaay yaa ko war di ko dimbali ci benn côté. Mhm. di ko jàppale ci benn côté. Mhm. di ko di ak lu mu ti demee. dee ko bàyyi xel. Mhm. ak di waxtaan ak moom di ko delloosi. même boo amee sa copine nekk ak moom yenn saa dee ko delloosi. waaw ndax ñoom boo leen bàyyee rek ñu tàbbi ci loo mm. xamante ne après yow. waaw mooy loolu da nga ciy. il benn euh, communication. waaw boo xam dafa dafa war di am saa su ne moom di ko fàttali boppam. Mm-hmm. xam nga di ko fàttali mooy kan. Mm-hmm. ak lu jotaay bi neex neex neex loolu mënut a ñàkk ci ñoom. Mm-hmm. xam nga nga leen di bàyyi xel quoi di leen euh, di fàttali ñoom ñooy kan. li ma waxoon sànq bisu nee naa ko ñun moom nekk ñu ñu extraordinaire dañoo ordinaire. c'est pour cela parfois ñuy def ay erreurs mais tamit saa ñu ko defee nañu bàyyi xel ni que euh, comme li may wax rek doom bu jigéen ju nekk ci kër moom mooy fayul xas yañ daan xas waajuram bu jigéen ndax bul fàtte ni bi muy ñëw ci kër doon fa sëy si am na ñi nga xamante dañ ko doon dee ko xool du fa jur lu baax bu doom ba demee nag ba juddu doon jigéen ah fitu ndey ja dootul toog ndax lu ne lañ koy jël daal di ko koy gàntal ci si si ndoddam muy doxi ak li ni mel waaye tamit nday jooju kañ lay tontu ñi nga xamante ni ñoo ñoo doon wax ca moom nday jooju kañ lay tontu ak nan la koy tontoo mooy doom ja ñëw am bés bu rafet ba dégg alxayri bu boobaa su ko neexee mu gis sax pooju yaayam ndax fecc ga nga xamante ni moom la war a fecc mooy fecc bi mu war a tontoo ñi nga xamante ni ñoo taxawoo naan ko du fi jur lu baax wala du fi am lu baax li ni mel a tax comme ni ñu koy waxee suñu mbokk góor yi également ñu jox leen benn message mooy bu leen di profité ci jigéen ñi jigéen bu la jëlee ba bëgg la boole la ci boppam ba loo ko wax mu def ko bu di profité ci wàll wi ba laaj ko sa bopp déedéet gentleman dëgg bu la jigéen si meeku woon ba jox la boppam sax ne ko déedéet nañu xaar bés bi nga xamante ni mooy bés bu jekk bés bu rafet bi ndax lu mu mën a doon am nga rakk te lépp loo def ci rakk jàmbur day répercuté waat si rakk nañ si di bàyyi xel dem na ba jamono dafa métti gis nañ ni léeg-léeg jigéen ñi dañuy bëgg waaye seeni i bëgg-bëgg seen am-am day néew léeg-léeg mu ne xaar ma dem sama caam ma jaw ma jaw nag daf ko rokki mu rokki da may jox ma door laa jox li ni mel nañu ko ba su ñeen mënee dimbali te yàlla rek tax nañu ko def te jamono jii métti na métti goo xamante ni góor ñi sax seen bopp pour ñu jug lijjanti day dëgër waxuma la ak jigéen ñi nga xamante ni amuñu si fu ñu sës kon bu ñu di profité ci wàll wi bay def na laa sudul noonu ak ñoom di jaxasoo ak ñoom ma tourné ci yow wax la li nga xamante ni xalaat naa ko mu jëm ci wàllu internet beeg réseaux sociaux yi wala waru war waruñu si fréquenter bay jël yenn vidéo yi di ko ciy publier solo yow muy jigéen. réseaux sociaux euh, mun naa ne nekkul fréquentation boo xamante ne 100 pour cent la. Mhm. mën nga si nekk boo amee loo war a def nga def ko mais loo xamante ne sa la. Mhm. yoo xam ne ñaar nit ñoo ko sekk. Mhm. nekk si néeg mun tëju ràpp. lan la fa téléphone di wut. Mm. lan la fa téléphone di mais tamit xale góor ñi il faut que ñu arrêté. Mm. dafa dañu war a arrêté parce que mënuma nga gis benn xale bu jigéen nga war ko jàppee comme sa sœur. mais doo ko def. Mm-hmm. mun nga nekk fii Sénégal déjà parce que quatre-vingt-dix-neuf pour cent des cas. Mm-hmm. si lu mu ti fi. Mm-hmm. ku góor ki du fi nekk day nekk fële ne ah diw xale bu jigéen bi ñaan ko benn cinquante mu ne ko dama may defal vidéo tout nii nga vidéo envoyé ma ko. loolu majoo dina si tontu. waaw ah, kay loolu Madiaw laa xaar. nga def ko après doo xam conséquences yi après. Mhm. tey loolu war a kaa yu bëri wala yow nga nekk góor si néeg la fa téléphone di wut sutura. Mhm. wax nga ko sànq. Mhm. donc nañu bàyyi xel lu bëree bëri xale yu góor ñu tamit il faut que ñu arrêté. parce que lii bu amee ah, góor a jigéen la de waaye cas bi yëpp quatre vingt dix pour saa yi ji jigéen ki lañ koy këpp loolu mooy waral ne jigéen tamit lu dafa war a xam boppam mhm. xam mooy kan xanaa Sénégal dañu tàmm benn mot bu ñuy faral di wax mhm. ah coowum Sénégal ñetti fan la mhm. waaye bul xam luy dugg si si ñetti fan yi luy dugg internet dans trente ans mën mën na ñëwaat boo amee njaboot. kon nañ siy bàyyi xel ah xam ne internet bi ah, def lu baax mu ngi si mais tamit nañu xam ne bu baax ah, am na yoo xam ne waruñu ko si def. Mhm. parce que téléphone ah, dem bay filmer say cër ani kersa. Mhm. ani kersa jigéen xamee wuñ ko woon la tey bu ñu demee tey ba loolu di am ah loolooy war ne c'est le monde à nañu xoolaat jikko yi tamit. nañu xoolaat jikko yi euh, noonu la wax nañu xoolaat jikko yi man ma ne internet tuddul internet mooy entre ndax nit ak dof duñu ko def nit ak nit a koy def ba tax ni lépp lu fi war a dugg rek war nañ ko xoolaat ma tourné ci yow ndax la mu wax nee na góor ñi la lu jig njaak nag nee na góor ñi la danga koy rejoindre. wala da nga koy euh, contredire. waaw ci benn côté ci benn côté benn instant day wax dëgg mais tamit aussi li may li ma koy blâmer ci li mu wax sànq. Mm-hmm. damay am benn nit ku may nekkal koo xamante ni mi ngi kaaw. Mm-hmm. donc dama ko ñaan benn cinquante mille. mënuma mm-hmm. il faut nga def vidéo tout nu envoyé ma ko. donc yow ku jigéen ki bu amee lu ko mën a jaral. cinquante mille francs tax muy def naka su dul noonu di ko envoyé yenn saa ngi si cas yi nga xamante ne Adamo da koy traité dañ ci gis cas yoo xamante ne kaa kaa yu jaaduwul la. Mhm. wala léegi léegi sax Adamo moomu. Mhm. dinañ ci taxaw ndax man je pense que ni Adamo newul Sénégal. Mhm. kon Adamo am na koo xamante ni. très bien moom Adamo moom Adamo moom Adamo am na ñu ñu muy joobal fii ñoo xamante ni moom dale leen envoyé les moyens. d'accord ñu koy lijjanti li mu war a xam. même bu buggee Adamo moo la gën a informé. information moo la ko nekk. moom bu bëggee ku ko informé yow moom lu muy am ci information ci Sénégal yow doo am yow mi en tant que journaliste. kon dafa am ay ay am na ay éléments même dégg naa ko mu ni euh, xale jigéen yi nekk Mbour. Mhm. dem na ba leer na ko ne duñu ay sénégalaise moom Adamo moom waat na ne duñu ay sénégalaise def na ay investigation yoo xam te ne wan na ni ko xale yi duñu ay sénégalaise nu fi mbuur la ñu nekkoon sale yi. Mhm. ñu ci bari ay ñag la 30 yi ngay dégg. loolu dégg naa ko ci moom xaw ma nag lu leer la wala lu leerul. Mhm. donc moom day am ay information et puis dafa ñu muy joobandool ñoo xamante ne ñu ngi fii nekk xale jigéen ñi xaritoog xale di ko envoyé ay vidéo yoo xam te ne ñu ngi koy jëlee ci ñu gën a sës xale jigéen ñi. Adamo non non mais à part parce que ba Adamo ñëwee ba tey vidéo yi wàññeeku na tey kuy xalaat envoyé tey non da nga dafa gën a yokk da nga dafa gën a yokk Adamo bu mu ñëwee trente trente vidéo lañ lañ dóor bi non Adamo dafa gën a yokk non attends attends dafa gën a yokk tey kuy xalaat yónnee vidéo di nga xalaat ni i Adamo bés bu jotee samay vidéo dina ko wili xale yi xale yi xale yi lijjantiwuñu ah, Adamo ah lijjantiwuñu ko de xale yi lijjantiwuñu Adamo cinq minutes de plaisir la c'est vrai mais après conséquences yi kon Adamo trente vidéo yu mu jot xanaa kon soo ma ne wàññeeku na daa gën a yokk nag gis. non mais attends. Eh, la mais wàññeeku boo xam te ne Adamo chaque jour ba muy ñëw boo leen xoolee si mm. période Covid bi la. waaw ah, deux mille vingt bi noonu. ñu ko si xale yi demoon Mista. waaw ba affaire bi éclaté Adamo moo ko njëkk a génne. mais après commencé di comme que lii ku envoyé photo Adamo mën na si jot na fuite mën na wax ko sànq parce que say nit mën nañ la jaay jox ko mm. Adamo mm. kon tey booy xalaat di envoyé sexe wala leneen ak leneen di nga xalaat Adamo nañu xam mais fii nag xalaat suñu ko de ka mais ah, non vidéo bi yàgg na boo leen xoolee vidéo 30 lii yàgg na am na léegi xaw ma je pas ak un vidéo mu ngi soog am fuite nañ waxan dëgg mais jamono ñu ba Adamo commencé publier vidéo yi ba tey ñu bëri wàññeeku nañu non ñun wóoronu ba xam vidéo yi lu yàgg la wala lu yàgg non xëy na moom daa xam koo xamante ni doon na publier après publier tout ndax Adamo ñëw na waaw euh, du loolu est-ce que non mais mais loolu amul ah, gis non mais man dama a ay yu bëri tey koo ne ma vidéo wala mu ne sama vidéo du ma ko def na Adamo bu ma jàppee mooy loolu mais mais mais yéen gis entre yéen entre yéen jigéen entre yéen jigéen selon yéen tey est que nekkul yéen ci seen bopp ci seen biir xarit yi ngeen di xaritoog yooyu ànd yi ngeen noonu ni ngeen di nekkee di bokk chambre yeeg yi ni mel nekkul tamit foofu lay mbir mi di jaaree di am fuite am kenn koo xamante sax si yéen mooy représenté Adamo xam nga àndu jigéen dafa doy waate xale yi foo nañu foo boo xamante ne mhm. tey mën nga ànd mu neex comme caaki rek sow ngeen defandoo lu nekk ah, mhm. ngeen réeroo benn jour ñëw ngeen réeroo rek mu jël sa téléphone wili pande la jël vidéo am man gis naa si ay cas yu bëree bëri ñoo xam ne jege nañ ma mu dal leen seen xarit ñëw seen kër ñi may seetaan ah xam na bu baax ñenn ñi li may wax ñëw mhm. seen kër ne seen copine jox ma sa téléphone damay snap ñu snap nekkatee airdrop na ay vidéo kooku nuyu jël ko yónni ko benn xale bu góor ne ko santagel diw nañ waxal dëgg revenir ci boppam kon mhm. dootul xale yu góor mhm. yéen jigéen ñi la parce que ñoom xam nga seen problème non ñenn ñi tamit non tamit dinañ jël vidéo bi yónnee ko xale bu góor ne ko kon que diw nobu la dalay doyee sa xaalis ah jor naa ay vidéo wili pande ko yóbbu ko si Adamo wala keneen ak keneen da ngay gis cas yoo xamante ni moom xale bu jigéen bi comme li mu wax sànq moom ak ku góor ki bi nu nekkee mhm. ku jigéen ki mi ngi gis ni ku góor ki mi ngi koy filmer mhm. te waxu ko dara mhm. mais dangay gis loolu mais yow yaa nekk ak xale bu góor bi moom mi ngi mais mi ngi filmer moom yéen a ngi nekk moom mi ngi filmer di di jël loo xamante ni xam nga ne lii bu génnee lu ne mën na ci xew mais yow doo ko ne arrêtel da ngay continuer ñàkk fayda waaw mooy loolu léegi problème bi mooy boo waxee ni Adamo bi mu ñëwee la kaay yi wàññeeku Adama chaque jour mu traité cas. ah kaay cas bu ak cas ba muy. en tout cas en tout cas man moom li ma mën a wax a person nga xamante ni bu bu ma deewee. Mhm. du ma du ma fi nekk di koy layoo kenn ndax li am la. Mhm. Euh, récemment rek jot naa benn femme boo xamante ni ci internet bi lay jëlee sama numéro. Mhm. mu envoyé ma ay ay audio audio yëpp a ngi nii. bu ma ko kii bi permettre woon léegi ma jàllale audio yëpp femme bi li mu si jublu ci audio yi mooy. Euh, dama laa gis ci internet bi ma gis nga yor ay ay meublé ma bëgg nag nga nga am benn waay boo xam te dama lay jox numéro mu def réservation ci yow su ko defee euh, ñu dugal ko ci néeg bi mais moom dafa yor xaalis bu bari la yor dama bëgg bu duggee ci néeg bi ma fexe ba jox ko benn affaire bu nga xamante ni jënd naa ko ba pare benn médicament la nga xam te day nalaw su nelawee ma jël xaalis bi ma boole ko ay góor ñu jàpp ko su ko defee yor ma jël ci parti xaalis bi ma jox la ko audio yaa ngi nii numéro Famba ngi nii jox na ma sax numéro waa ji faf te fii la amee ci mim réew mi Sénégal. Mm. je pense bel et bien aussi xale yu góor ñi war nañoo def très attention ci ñi ñuy faral di waxal ñoo xamante ni bëgguñu leen par amour mais dañ leen bëgg ngir seen xaalis. Mm. to dama ne xale yu góor yi bari na ci ñi nga xamante ni suñu amee gel xaalis bee tax ñu am gel mais du ñoom nag entre ñoom seen fit mm. mayu leen ko. xale yi jigéen ñi également ñu koy def tey ki jël vidéo ki jël li yëpp envoyé ma ko. su xamoon man ci li ma ne ko envoyé ndax man dem naa bay ne may woo woo waa ji ne ko maytul bul dem fee ak fii même soo ñëwul ci man bul dem fee ndax kii lii ak lii ak lii la jublu ci lii soo ko defee di nga ci mun nañ la ca ndax nee na dalay boole ay ponkalu góor dina la jox loo xamante ci kaas bi lañ koy def nga naan ko nelaw mu jël sa xaalis bi yëpp daal di dem yooyu nag nañ ci di bàyyi xel gis loolu tamit ba tey ci jigéen ñi la kon yéen tamit boo leen bàyyiwul ba tey ay ay ay jàkkaarloog sa moroom jigéen naan ko bébé ay susu ay mimimi ay wowowo yéen doo leen jug ci di jël seeni propre vidéo di koy vilipender kon quoi qu'on puisse dire nañu waxante non dëgg la luñ njin ñun la pan nañu kilifa amuñu fulla suñu bopp fokk yóbbu nañu hmm. nañ waxante dëgg la plupart xaalis moo leen jaral lu ne mais lan moo tax duñ dem liggéey nañ nañ war a dem liggéey mais gis nga boo liggéeyiwul exposé sa bopp si ay problème doo jug si ay vidéo lu ma tëf doo jug si drogue góor doo jug si leneen ak leneen mhm. te jigéen mu loor jigéen dafa jigéen baax lañu xam si moom mhm. yiw mais tey bu ñu demee ba ah damay drogué ku góor ki jël sa kon xale yu jigéen ñi ah lu ñu njàkk ñoom la ah. mhm. dëkk bi pan nañ kilifa sa ndey sa baay dina def si yow éducation nga génn yoor beneen melokaan beneen jikko kon il faut ko mu doy il faut ko lii ah ñu jug si ah parce que depuis deux mille vingt ba tey si plein Covid bi ma tañ si coow bu si coowee benn un mois mu jeex ñu fay trois mois après ñu génnewaat lu mu tëf il faut que mu jeex parce que bu jeexulee ah kenn xamul fu ñu jëm de. man ma xam fu ma jëm damay wax ak yow rek. mooy mm. euh, defe naa li ma fi wax léegi dégg nga ko ci ay pièces yoo xam te dañ ko bëggoon a lalal ay góor te loolu ay jigéen ñooy nekk ci ginnaaw parfois jigéen aussi góor tekkal ko yeneen dëgg sërxal yu ni mel donc ci réew moo xamante ni comme ni nga waxee dafa ñu ay valeur boo ci doon conscientiser aussi tuuti góor ke ku jigéen la. lan lay doon. Euh, Davida gis nga actuellement gis nga audio yi nga xamante ni moom moom nga fi wax. mu ngi nii bari na loolu maa ko nii donc loolu moo lay wan ni ñoom da dañoo am fit. Mhm. xale jigéen mhm. fi mu toll nii ñoom ñu ëpp sax góor ñi fit. Mhm. te xaalis. fi li mu leen jaral ci ji jamono jaralu ko sax góor ñi. te góor ñi nag ñoo waroon toll foo xamante ni ci wàllu wutum xaalis. ak mu jaraleen lu ne foo xamante ni jigéen du fa toll. mais tey ñoom xale jigéen ñi. la xaalis jaral nu jaay seen ngor la xaalis jaral même seen waajur wu jigéen wala seen waajur wu góor boo leen waxoon jaay leen ma ko ñoom leen jëli ko jaay la ko ngir xaalis jaral na leen loolu foofu nag buñ fa demee ba yegg pour régler waat leen teg leen ci yoon day jafe et tamit euh, parents yi am ci benn part de responsabilité boo xamante ne bàyyeeku noonu. Mhm. problème bi yëpp mooy parents yi dañoo bàyyeeku. mais am na du parents yëpp de. waaw du parents yëpp. waaw du am na ci parents yoo xamante ne moom dañoo bàyyeeku. Mhm. donc bàyyeeku bi mooy dem nga ba jàpp ne mënatuloo mënatuloo ko dara. Mhm. donc heure bu ko neex lay ñëw. amoo fitu ni ko foo nekkoon. gis naa parents yoo xamante ne billahi. waaw ñemewuñu seen doom bu jigéen di génn nu ñu ko foo jëm. am parents yoo xamante ni dañuy to dañuy dëkk ak seen doom bu nu xam ne kii lu bon lay tax mhm. duñu ko wax lu tax mhm. tux lu bon laa la wax de lu nuy tere te doo ko wax lan moo tax ngay tux lii mhm. te nii la koy tuxee yenn saa sax mu nga kepp mu kepp ko ne romb la léeg-léeg sax nga gis ni sa doom sa doom ji moo agressé ka ka nekk ca bopp koñ ba mais da koy jël fat ko léeg-léeg mu wóor la ne lañ tegoon fële sa doom jaa ko sàcc nga éducation moo mu moo ñàkk amoonu chance boobu bu njëkk da gis xale tey day génn def na naka sudul noonu kilifa ci boppam mhm. koo xam moroomu baayam la corrigé ko mhm. baayam bu ñëwee day encouragé kilifa bi nga xamante ni moo ko corrigé mhm. yàgg naa ko gis Saint-Louis bokk loolu moo fa am tey xale boo jaarul yoon wala ngay daw jàng yooyu da nga gis paa bu romb fu mu jëm dafay daw jàng mun na tàlli xamoo ko de tër la tey seen waa kër ku ci daj jeex na am na kenn ku ko lijjanti fare nañ ci parce que loolu mooy éducation xale dañ koy wan ne yow xale nga macha allah lii valeur bii lañu war a def ci yow. Mhm. mais tey koo laal doomam dootoo ko defati yow da ngay nekk ak sa sœur. Mhm. propre sœur tey doomam sa jarbaat. Mhm. amoo droit ci moom. dëgg la gis naa ñuy ñuy saagante. ngir sama jarbaat la dóor te ñoo bokk ndey ak sama doom la dóor quoi. te ñoo bokk ndey ak jarbaat bu fekkente ni dem na ba amatul nijaay amatul bat ci moom. kon lool lan mooy nijaay. lan mooy nijaay kon jamono foofu la toll euh, valeur yi amatuñu valeur du éducation du dara xam xamatuñu sunu bopp mhm. ñi ngi dem xamatuñu fan lañ jëm ñi ngi rek xam rek xamatuñu ndax dañuy wéeru wala fu nu dal baax na tey foofu lañ toll ñi nga xamante ni tey ñoo ñoo ñoonu jiitu mhm. ba dem mhm. tey bu nu dellu xamee tunu Sénégal Sénégal bi nu bàyyi woon ak Sénégal bi wuute na. Mhm. ci lépp nag ci côté bépp. Euh, Davida. d' accord euh, loolu di ay kàddu yi nga xamante ma Madiaw moo fa jaar man it damay wax rek naan jamono ci jamono ji nga xamante ni ci la ñu nekk ci biir émission bi ñu nekk muy jamono euh, thème bi moo nekkoon wàllum les motifs ak lu ci mën a doon nay jigéen ñi di bàyyi xel ma wax la leen may xel mooy nga joxe solution ba jaar fa tàggawaale ñi nga xamante ni ñoo la doon seetaan. solution bi du lenn lu dul jigéen na am fulla mhm. jigéen na bañ jigéen warul wow bët mhm. ñàkk kilifa ah buñ ne la vidéo nga lii bu ne la buñ ne simmeekul nga gaaw a simmeek mhm. sam benn xarit bàjjanam daana doon wax ñaari pooj ak nekk nëkk ñoo ko seeg koo ko joxul du ko fa jëli mhm. am leen fulla bàyyi leen vidéo yi ngeen di jël di wili pànd seen bopp deme da ngeen di am famille da ngeen di am doom nekkul tout le temps rek yéen la internet bu la fa baax taxee dugg di nga baax bu la fa nag leneen taxee dugg di nga wili pande sa bopp Sénégal coow la dans trente ans wax bu du fay loolu la donc nañ jéem a defaraat taxawaay ñu xam nañu ay jigéen lañ nañ daami doole bañ a basé wu si góor ñi parce que góor ñi la plupart rokki mi rokkaan la ñuy def balaa nag ngay exposé sa bopp comme yenn xale jigéen di wax xaalis doo ko liggéey da nga koy lijjanti lijjanti boobu nag mooy tax ngay dugg si pax yéen yenn jigéen am leen fu lay liggéey ndax bu leen xeeb dara liggéey moo tax ëllëg ñu naw la mooy tax lu bëri tentation yu bëri doo ci doo ci dugg ndax ku ko ndax tey boo xiifee ah amoo ful lay liggéey tey lu ñëw dalay këf loolooy waral tey conséquence yi donc nañ defaraat toogaay mm-hmm. ah jéem a amaat xel ne góor lu mu mën ñu jigéen mën nañ ko ah ñun dañu làmboo baax donc nañu xëy di baax ba mhm. abadan daay man am na looy di tàggoo nag di wax Davida émission Tabi ak Diaw euh, émission bu important mhm. thème bi nga teg tamit macha allah mhm. nag thème boo xamante ne chaque jour presque chaque jour ñu ngi ko gis ci société bi te leen taxuñu fi nag du dul toog yeete nekkuñu fi di juger kenn mhm. ah, di tàggu nag sama mbokk internetu Dakar Net mhm. ah, avant may euh, lii nag nga may ma ma jéem a euh, remercier salon maam nga xam ne tey ñoo ma defar lii mhm. ah, ki ma habillé nag mooy sama sama boutique gis classe and chic di leen wax jaajëf nii lañ koy defee saa su ne chaque samedi pour di leen wax ay thèmes yoo xamante ne mooy xew société lépp lu baax nag ngeen xam ne ah du si ñun euh, yàlla suñu borom la lépp lu dëng loo xam ne jàppee ne suñu mata matadi la di leen wax nag à samedi prochain mhm. balaa boobu jàmm si yéen jàmm si ñun à très vite macha allah ah ñun nag mbégte la woon ak kontaante ak yow euh, xam naa rek koor gi moom dañuy jaar rek après xoolaat nan la ñuy defaatee plateau bi xam naa ne junior après dinañu jàppale ak ñoom bisu ma jaar fa laaj la yow say solution yi tax ni benn internet dootu ti benn pression ana lan lay doon Ousin kii déggal. benn la <laughs> dañ koo nam ma waaw gisoo et puis sama lakkal la quoi sama waay la Davida mhm. noonu la demee comme ni nga ko waxee léegi comme ni ko gis waxee mhm. mooy euh, ñoom ci wàllu boppam mhm. euh, bu nu bàyyi woon maanaam TikTok TikTok ñoom xale jigéen ñi dem na ba ni ma ko waxee sànq amatul ci benn sago ni ñu ciy duggee xalaatun ko di leen wax rek di leen ñaan dañu nekk ci koor ñu ngi waajal um te gars yi yenn saa yi bëgg bu ñuy dàq koor di dugg ci togg yooyu defaraat leen colin beeg yooyu tey boo duggee seen seen vidéo yi ñuy dugal lu leen neex nañu dugal danga ci gis ku def deux pièces dugg di fecc ngir am vue wala ngir am ñu xanaa koor gi dina wàcc waaw si la ma jàpp ah. nanu dimbale gars yi dañuy woor te bëgguñu nuy woor suñu koor di yàqu xale yi jigéen yi donc mooy li ma lay wax amatuñu benn sago ci li nga xamante ne moom la ñuy def mhm. ñoom seen valeur jaay nañ ko jeex na ndax loolu li ko waral mooy xaalis donc euh, loolu daal la leen di wax di leen delloo siwaat mhm. ngeen xamaat seen valeur comme ni ma ko waxee sama njëlbeen xam ni lii ay xoy-xoy rek la adduna la après day jeex te lii sunu kanam lañu war a gën a bàyyi xel kan li nga xamante ni mooy moom moom lañu dund ndax adduna lu dara ay xoy xooy rek la maa ngi euh, tàggoo di di di di comme ni ko gis waxee di gërëm tamit aussi samay jigéen mm-hmm. Fama Fall ak Mami Mami Fall samay doomu baay lanu samay xarit lanu dañuy seetaan jamono saa su ne ak euh, jëwrin Lamine Diop xam nga ñu ngi waaj 17 avril bi xam nga xam naa ne dinañ ci def ay plateau incha allah mënta ñàkk sëñ Béthio bi mu daje ak Serigne Saliou mm-hmm. ca Mbour xam naa du ñàkk incha allah dinañ ci yëngu euh, ñu ngi leen jox dig daje ba beneen samedi ci seen beneen numéro jamono incha allah jaajëfal ah, nga may ma nag ma dewis koo xam ne day seetaan émission jamono mu ngi nekk depuis les États-Unis ñu koy wax grand styliste boobu Yatuma Mohamed Diouf dalaa marqué Yatuma nee na daal du du du ko rate daal waaw nee ma nag gis damaa bëgg na comme que ma damay seetaan chaque samedi mhm. jamono may tuddal sama tur kon di la wax euh, Yatuma ñun waa euh, Euh, groupe lii euh, Dakar liiw mm-hmm. jamono ñu ngi lay wax ne ñu ngi lay bége bu bëree bëri ah te ni nga def na confiance si ñun ah ñu la koy delloo macha mm-hmm. allah daal <laughs> kon nag yatama foofu la nekk ci États-Unis ñun nag ñu naan la xoolal sans manquement waaye tamit suñu sentiment rek la ñuy jël daal la koy jox nga nuyul ñu ñëpp ñu nekk waa États-Unis man ma jaar fa nuyoo ñu nekkoon ci ginnaaw lépp su ma ko waxee bàyyi ma Yankoba Badji de son vrai nom waaye tamit bisu sama sister tuuti nee naa la bis ni ki tey dinga gën a pata ndax bu booba koor gi rek gay jël résumé ko waaye tamit junior ñu ngi lay ziar di ziar également suñu DG bu ñaawal boobu di bukkunta d'ici là votre serviteur Davida di leen jox dig daje beneen samedi incha allah jamono bu ko fekkee war caa demoon